doon nettali ca sunu mbokk séeréer ba ba muy soog a tuub te tase koor te mu dog rekk ñu ni ko ay ca jàkka ja mu dem ca jàkka ja ñuy sëgg ka siggi rek ci naafila nee na bi mu sëlmalee daadi di woo doom ji fekk mu ngi ci biir sàpp si mu ne ko dem demal woo sa yaay mu ne ko ma wax ko lan mu ne ko nee ko mu ñëw ndax fii la ñuy jógee dem aljanna waaw waaw ndax naafila yu bare waaw ay saan waaye fekk na ku nekk ak la nga yéene yàlla ku nekk ak la nga yéene yàlla waaye dafay am lu nga xam ni ku nekk danga koy négocier bala nga cay yegg Maodo Seydi El Hadj Malick radiallahu anhu négocier nañu lépp kon ku tardé rek ci yow la waaw lu dëgg allahu xasbi limam bi suui kaada bina kadaaka inda mamaati xasbiya allahu lu dëgg wa inda masalati fi lqabri da faraqin lima xtaraftu dunuban xasbiya allahu wa indama nusiba almizaanu maadilatan arju nabiya alhuda qul xasbiya allahu lu dëgg allahu xasbi ida mudda siraatu ala matni jahannama maddan xasbi allah defe ngeen ni lii ku dëkk di ko ñaan bis bu ne nu la yàllay def hmm? fokk yàlla am moom it lu mu nangu waaw moo tax ñoom kenn mënu leen fay waaw xanaa di ñaan yàlla di yokk seen leer di yokk seen barke yàlla gën di yaatal seen mission ba fu mu war a yegg mu yegg fa loolu daal lañu amoon ci lu ñoo sant wax leen ko mag ñu baax ñii fi ñëw te Oustaz Cheikh tudd leen ñoom ñëpp nag waaw kenn ku ne waa jaamal ak ñu jëkk dëkk Jurbel ak waa kër Magay Njareeg ñëpp kenn ku ci nekk fii seen kër la ñoo ko moom tabarakallahu sëriñ Mor Njaay xaqiqa mu di limaamu lay de sëriñam it sedd nañu ci boppam lu jar ñu tudd ko sant ko waaw dee Cheikh Ahmed Tidiane Diop bu Maktoum Buruut ndegam ña ca wala ndoowa daanu ca teen ba masaak ña ca bind ba waaw wa tabarakallahu jàmbar la waaw bu ko defee rek nag sunu mbokk Mansour Diop tabarakallahu maa ngi koy yóbbante sax ci Pape Alé fekk ci information yi rek ni ngay dégg ñoo am nu ñu waxe fekk na ndekete demewul noonu waaw ba ma yóbbante ko ci Pape Alé waaye tabaarakallaahu bu demee nenee nit waaw honneur baa ngi fi ñu di leen ñaanal yàlla eh, mu mel ni nag sama mbokku séeréer bi waaw Bachir Diomaye Faye waaw mook sama mbokku Casamance bi Ousmane Sonko waaw ñoom la yàlla dogal ñu nekk tey ci kanamu réew mi kon nag li ñuy def rek mooy ñaanal leen yàlla yàlla tette leen ba ñu mën a tegaat réew mi ci fiñ ko war a teg te Sénégal rekk yàlla ruus mag ñi fi tëdd ba may leen jàmm may leen sutura may leen tawfiq incha allah loolu rekk moo nekkoon kàddu yi bu gàttee it na beneen yoon mu gudd lu ci marché wulitam itam wala sunu xam-xam yàggu ca yéen asatid yi xanaa bu oustaz Modou Fall jógee bokk mook oustaz Cheikh waaw ak imam Samba Diop tabarakallahu ak ñoom oustaz Malick ànd seen responsable yu baax yi sunu collège yu père yeeg collège yu mère yeeg commission féminine yeeg dem ba ci sunu cadet yi mustarchidine junior yi waaw tabaarakallaahu sant ñëpp waa parti bi seen parti la ñun dañ leen di gungere rek tabaarakallaahu